chéri vraiment dëgg dëgg nag kaay dañu wax xaalis neex na waaye man dama naan nguur neex na xam naa ci dara <laughs> waaye sàllaa ku ko ci mosul mooma jaaxal da ngay iñaan moo tax <laughs> waaye nag waaye nag chéri nguur gi lu mu neex neex neex coow bari na waaw mais coow li mënut a ñàkk parce que ñu soxor ñi la parce que li may dund nii daf leen naqari jàpp nañ ni ñoom fii ma tëdd nii war nañ fi tëdd moo tax jaral na lu nekk mais man maa ngi sant yàlla comme maa ngi ci ah coow li bari na de non loolu grawul li li am solo rek mooy féex gi nekk relax sa kër neex kenn dugg fi kenn dragé wu la loola neex def booy génn ñu xàllal la Sénégal daal nguur neex na fi quoi ah, dafa eh, li nga ndokke tey billaay li nga génn ci moom na la noonu nii dafa nice dafa dafa dafa dafa cool quoi merci chérie merci ah? kii dama la ci may benn lépp lépp waaw ah. bébé nag bu ma léeboon na nga ma reetaan eh, da ngay reede bu neexul nag bu neexul itam nga re ah, président bu lépp nga re de. <laughs> le reer rek dégg waaw benn paa woon. waaw non leboon. lippoon amoon na fi daan na am. voilà ba mu amee yaa fekkee. yaa xuma dégg. nga. <laughs> tàbbi àjjana. <laughs> non bébé fàtte woo. Ah. oui fàtte xole léegi benn paa woon. Mhm. léegi nag paa bi nag dafa jëkk-jëkk rek. génn ci benn angle. Mhm. paa bi di daw di daw di daw di daw di di daw di ba ci yàgg rek. Mhm. mu ñëw ba beneen angle rek fekk benn mer teg caafam. Mhm. mu ne ko mer caaf. mais benn mer caaf bu ne ko waa paa daw. mu ne ko waa meer caaf alma caaf mu ne ko paa daw teel caaf rek paa daw dawaat teg caaf di daw di daw di daw. parce que yàgg paa daw taxaw am benn cëli bu romb yor jën. paa daw ne ko bàyyi cëli mu ne ko paa daw foo jëmee jën bi mu ne ko marché. mu après nag mu jékki-jékki ma xool dafa naa paa daw moo demoon de. non Padow moo dëppoon. ah waaw après cëli moo continué bi cëli continué di naaw ba si yàgg rek après picc benn picc yi dugg benn kër après mu naawaat pour mu jox jeex na. doo rebe jeex waaw pourtant nag sérieusement xoolal li bi ma ko lebee Fouta ma ko lebee Fouta sama gars dañu tasaaroo lépp neex na lépp neex na neex Fouta kay lépp mais yow da nga xamul lépp neex na. mais wuy ma baa forul. bu man du bëri dama ko téye sama loxo. xamante ngeen <laughs> eh. du kuré sa ko man ataay boobu for bëgguma waaw c'est xamante ngeen de vraiment merci chère à l'honneur à femme. merci chère man yéen sax ma naw la da nga respecté jigéen. ah mais mooy yéen jigéen amuñu lu ko ëpp. mais Fatou ataaya da nga nit nit. du ko rek ataay bi ataay bi neex na di Doucouré. mais suukar si waroon nga ko mën a kii dafa manqué tuuti. ah neex na amul defoo non neex na mais suukar si moom manqué tuuti. mën naa cof sànni rek. déedéet da ko suukar. waaw ah. da ko suukar wala déedéet. Mm, incha allah ko ci naanal. guub guub moo la wax lépp. neex na naanaa ordinaire la sax jox. Mm-hmm. déglu guub bi <laughs> moom dafa neex quoi. dégg mu ne ma neex na di en tout cas. neex damay kontaan boo nee boo boo fële sa kanam damay damay damay jaxasoo. <laughs> waaw loolu sax dépend ci moom mooy rek. si affaire yi moom. Oh, la. ah. bi Cheikh Dàll. Eh! Cheikh Dàll boo ko defar. kenn du yow. aadu Kouré neex na. Ah, macha allah le le plaisir est <laughs> dama la bëgg ndax sa joie de vivre. mooy hmm, hmm, hmm. <laughs> <laughs> nga am joie de vivre macha allah. ah de mine tam la tax mhm. <laughs> mais neex na quand bu weesoo suukar si neex na trop. Mhm. mën na am na ma la wax. <laughs> yow a war a wàññi suukar. yow aay woon nañ la nga wàññi suukar. kan ma waaye suukar. ah bébé kat sa médecin personnel aay na la suukar doo wàññi suukar. madame. sa médecin personnel waxu la nga wàññi suukar. man suukar ni ma ko. waaw man ki lu ko dal <laughs> bu ko da ngay rey bay bëgg a dee <laughs> ñu le loolu boo yëgu génne ñu le mais lii mooy lan waaw man daal man dugg rek dafa kontaan kontaan ah. Ah. Ah. loolu sa xit prési béréji loolu sa prési béréji loolu sa ñu ndeysaan non il va me tuer dina ma rey dina ma rey ah li ngay def nag yow tamit yaa ngi def li ngay def yaa ngi tiital picc yi waaw waaw tamit yaa ngi dugg rek xaaral waaw yaa ngi tiital picc yi doo yore tànn. xam nga man sama ree moo tax bëgguma di ree Sénégal xamuñu sama ree mais bu ma kekkoo. sama maam ñu doon defar sama. dëgg la sama baay ñu doon defar sa baay. dëgg la. bu ma ñëwee. waaw ma jàpp fenn lu bees. dëgg la ñu ne non yow yow da nga dégg temps. loolu it doyul. da nga dégg temps. waaye bëri waaw. am na yàlla bëri na waaye man. waaw. yii mhm. may liggéey sax rawatina sax intéressé wu. Mhm. waaye dafa am lu ma gën a lu ma lu ma lu ma gën a ñor. suñu wax rek lu am importance la histoire Sénégal. Mhm. dama bëgg nga leeralal ma. comme ni nga xeexee ba moom pare. moom ko dégg solo. lu tax dafa fanaan. man loolu loolu lépp damay tëdd di ko génn lu tax lu tax lu tax muy yàq sama bopp man hmm? da ngay dem. chéri dama man waxal waxal waxal. chéri. pré président Sall. man dama wax loolu. Hmm? Doucouré tey yow li nga wax ëpp na wax merloo nga ko fim mu ne yow keroog laaj nga ko question bi mu ne la dara yow xam nga ne dafa ragal pale bu ko waxati waxi pale dégaame nga de ah dangaa dégaame dëgg na yow maa lay jàppale maa ngi lay kaasal mi ngi la bëgg jox poste euh, ministériel nga ñëw di fi wax ay affaire de palais yu kenn xamul Doucouré am na loo xam ne dafa ëpp nag ah man loo ma ñeme ñeme ñeme am na loo xam ne bul ko wax ci kanamam ah dégaame nga de nga ma nag tooñ nga ma torop wa nga ñuli ñuli fii laa xam ne di nga fi ñu ñule teg eh dañu mel ni ay landeur sa kii bii dégg amee nga torop mer naa de émission la am problème bu ma déglu daa xam ne émission la amoon def émission la amoon def. su fekkee ne man du ma du ma du ma du ma doomu gor dama tàngal xol prix bi lu jafe lu difficile.